bu mu mën doon dégg nga dañ koy dox ba mat kon rawatina bis bii di muy bisu Cheikh Cheikh Ahmadou Mbacké ne Fall le 11 mars kon nan ko bàyyiwaat xel bi baax a baax a baax baax te di ci góorgóorlu bu baax. wax dëgg yàlla li nga xamante ne bi dañ ñu koo jox comme ni ñu koy waxee. li ko ni ko suñu Xaadim Bamba loo waxee. am na ci ñoo xam ne dama yàlla baax lañ leen di teg ci aw sas du jeex te danañ ko joxe ni ko bëgg te giñ naa ko Sëñ lii liñ ciy jëlee ñoom asaka ja sax duñ ko amee ca loolu waaw asaka sax ñoom duñ ko caa waaw kon nag léegi te ñooña dañ ciy góor bu wér damay bañ a tudd ay tur ndax léegi jamono ji ginnaaw boo waxee day day wër fu ne waaye bu gis nga si koo xamante ne bi dalay wax ci benn programme dañ ko ca sas boo ko déggee da ngay tiit sax yow dégg nga te na benn waaye bu mel ne man dara ne ne ne ne gu géeral rek. lu comme ni ñu koy wax def say karaamata xëy na yooyu rek dégg nga mbooloo ma topp ah mu topp la dégg nga lu ne mu daj ko yow mu wóor na la ni li yow càll la direct boo xam ne ci ci Sëriñ Tuubaa la jóg ah càll ne amul escale amul dara mu wóor na la dégg nga dégg nga dégg nga ne yàlla ne yonent bi ne seex Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim ne Cheikh Moudou Sowa ah bu ñu nee Cheikh ñuy wax si Cheikh si Cheikh Ahmadou Bamba Gaynde Fall ah Gaynde Fall mu koy wax noonu ko yëngu laam laam laam le wóor na ne kon lii yow moom moom moom maanaam moom moom vraiment dégg nga maanaam lu lu lu ne coow la. yow néew sax di def te même ñi nekk ci branche yi ni ñu ko borom xam-xam waxee maanaam dégg nga yoon yi ca yàlla toll na ne dégg nga dégg nga nooy mbindeef yi xoolal li fi nekk ci ñaata milliards de personnes ñoo nekk ci àdduna waaye nag wax dëgg yàlla nag a ah, kuy jóg na aw ci yoon wuy àgg war ngaa sant yàlla te yoon wi ndax koo xam ne boo ne jëyee mu gatandu la ah ah bokkut ak yoon woo xam ne da nga yéeg nga wàcc de kon nag léegi ñu wëlbatikuwaat nag ñu doon ay formation yoo xamante ne bii nañu koy waxee daara jee nga xam ne da ngeen kaa jaar ñii ca jóge ak ña nekk dégg nga ndax yéen ñi nga xam ne yéen a ca daara jee mër bu fa jógee nii ñu def leen ko def muy rëcc looy rëcc mooy man de lu ma teewoon a toog ca daara joo def nangam nangam ndax ñun ñii laxasaay dëgg la jamono ji bii ngeen di nekk kuñ na daara ji nga ne daara ji neexul moom kay nañu yàlla dimbali ba jógee fa waaye giñ naa ko ci Cheikh Moussa fa jógee da ngeen réccu ndax ñun dañoo réccu te benn doomu lañ dégg bari na gars yi toog fii yoo ne bii bu ñu mënoon a dégg am nañ lu ñu regretté loo xamante ne bii tey bu ñu mënoon a dem daara ja def fa 15 jours defaat ko noonu kon yéen da ngeen bàyyi xel bu baax yàgg yàgg kat da ngeen ñuy fekk si bi yéen da ngeen gudd fan wér te wàcc te ñëw fii waaye bu leen bu leen dara rawu bu leen découragé bu leen def dégg nga ndax man mii di wax ak yow ba may am juróom-benn xaw ma juróom-ñaar ma juróom waaw tey jii ku ma newul jaaroon naa daara ko ku koy xam ku ma koy xamal ah am naa jabar am naa ay doom maa ngi nii dégg nga dégg boo ma génnee fii am na rox ba ba ma fekk doo ma ñemee nuyu fii laay toog rek def nii te ñii ma toogal te xam ma am na lu jaxat kon nag dara yàggut kon buñ ci découragé ñun ñiit ñu bokk ñaanal ndax sotti yeeg def ci doomu la kon yéen il faut ngeen di suñu borom dot xéewal yi yóbbu ñu jël xéewal yi gën a kawe bu boobaa kat bu ngeen ñëwee du ngeen soon ndax fu ñu fekk saaga ñu ne li jënd leen la nangam bu boobaa dañ koy def kon ñii ñii dañ leen di ñaar benn pakk bañ leen a fir ngeen war a toog jàmm wàcc ak jàmm am ngërëmul la ngeen fay sàkk kon ñun ñëpp benn kon maanaam euh, loolu kon na ngeen gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax ah léegi kon gaañ yi màggalu Osmar sax ñëw nañ góorgóorlu ba nga xamante ne bii lii ñuy lii ñu laaj ñi néew ko bari nañ boole teg ak tayweeku lu mën a nekk la dégg ndax lii ko ñëpp yi waxe suñ portable yi ñu yor rek xaalis bu dul jeex lay jar donc yi donc waxuma laa dégg nga ñi nga xam ne dañuy yalwaan donc am nañ portable yu seer waxuma laa ñun ñi dañuy yëngu suñu bopp léegi nañu yàllu leen añu ne benn six mille loolu nañ ko gaaw gaaw gaaw gaaw dajale ko waroon nañ koo joxe bu yàgg waroon nañ koo joxe bu yàgg yàgg yàgg leneen li ci topp nañuy dajee loolu la ñu sëriñ bi dégg naa fi benn kilifa démb nee na même donge mi nekk daal si Cheikh Gaïndé Fatma daf laa lay wax déedéet gàllaaju tey gànnaayu tey àndandoo waaw sëñ bu tedd bi ñu doon léegi sëñ Mat Lo Mbéri dégg naa bu ma jubale moom la mu Gaïndé Fatma waxoon nee na ba mu demee dégg nga maam Basiirou Fall nee ko njëkkee bindal yaakaar mu ju ab bind la ko laaj foo juróom-ñaar téeméer bu ko sëñ bi waxee loolu bàyyi sëñ loolu ko bàyyi sëñ loolu dëgg mal kara ba mu demee dégg nga lii maam Basiirou Fall yal na ko yàlla yërëm te góor yàlla yàlla moo doon général daara ja nee ba mu demee da dàq gëm ko bëgg a yëkk bindal dégg nga euh, xaalis bu ndaw boobu la ko ca laaj ngir maanaam ndax sëriñ bi ndigal lim ñuy def léegi nag kon bu ñëwee ginnaaw dañu doon àndaloo ca daara ji waaye waaye rawatina bi ñëwee fee jamono daa tas kon dégg nga dañ tey kat ñun kenn waruñoo mën a këf nag ndax nag bu jaaxal jafe dëgg ñoo xam ne lañ nañ ci ak kon yooyu jamono ji wërta wërta yóbbu kenn waaye nag nag buñ nag bu buñ xeeb ñeen waaye daal nañ xam ne ñoom bu caaxaan joxe dëgg fii ñu nekk ci la mbir mi nekk kon nañu gën a góorgóorlu bu baax di daje wax dëgg yàlla bu waaye nekk gis na dégg nga maanaam dégg nga yéen a bokk bëgg buñ amee ay yitte ay aajo ñu wax waxante ko suñu biir faj aajo yu biir ak biti te nañ dañ gën sant yàlla ndax de xëy na day doomu aadama lu waaye mu ngi baax de boo génnee fii ba gis nit ñi tumuraanke yi ñu nekk ak yi ñu nekk te wala yaasu bi laa seen ëllëg du mujj fenn ñun war nañoo sant yàlla ndax ñun lu yëf yi métti métti boo xalaatee rek mbirum Sëriñ Tuubaa ak ni mu demee rek sa xel a dem am dara lu ñuy xalaat moom toog fenn ndeysaan ba ba yàllaa xam bu dogalam rek amul dara lu ñuy yaakaar ñun fi ñu toll nii ba te ñun dañuy kontaan looloo tax ak murid neex rawatina dong waaw ñun fi ñu toll lu ñëw loolu rek sant ñu gëm ne maa mbirum suñu bu dee lu lu gën ñu suuf te yàgg yàgg dana jeex bu dee lu neex a ñu bëgg te xam ne ëllëg lu métti mën naa ñu loolu rek cant bu rëy rëy la kon nag ngalawaay kon nañ de gën a góorgóor tey daje saa yoo xamee fukki fan ak juróom am na différence saa yoo jotatee fépp koo xamee ak góor yàllaa nga fa na ko wax moroom ja ñu bokk daje waxtaan naan nga fi jàng xasaay sëñ Tuubaa ñaanal delluwaat ñu nopp la waat tuuti nekkaat ndax kat lii loolu leen la rek ndax ginnaaw dégg naa ca mag ñi nga xamante ne bii xa nekkoon ca daara ji xaw ma borom xam-xam yi seen xaaj ñoom bi ñu ko waxee ay soxna mu ne kon nekk loolu dana am ah kon ñu loolu yëpp programme ñu ko ñu yàlla niñ koy waxee ni mu ni mu ni mu jafe ak xam nga loolu ndimbal la ñu ne am nga ko ci diiru ci ci diggante 30 ans wala sax moins de 30 ans nga nekkaat ci ñun ñi nga fi bàyyi woon dem nga ëppale leen fii leen yëpp jaaxal jeexe dëgg bu ñu génnee fii kenn ku jëpp la dara doo ko gis te dee am xel te bu dee coono ak lu ñuy bosaan lu métti ñu ñu jéngu ku génn fii bu ee léegi bu ko jaaxalee mu dem yëy gerte naan ndox ne ne cocc am ñoo bu ñu xiifee fee la ñuy tëdd loolu fan lañ ko jël lu may ca daara ja ah nañ gën a santaat sëñ bu baax wëlbat ko nag sant suñu góor yàlla ngi muy Cheikh Moustapha Mouhamad yàlla na ko suñu borom guddal aw feneen bi jëral ko koo xamante ni bi am lépp da la ah moo moo la cay jur te moo la man de kooku nag kon muy jaamu yàlla gis nga xaalis bambaloo doon wax bañ na ko dégg ba gis nga dégg dégg ne ni mu ko defee te lépp yéen ñu jàmm dong te ku bari yërmaane la ndax bëggul doomu aadama problème boo gisee ñuy mooy dëkk sëñ bi ko ay problème saa yoo ko waxee rek mu tuur ay xéewal kon ka xam nga ne kooku lim ñu yéene bari na fii nii ñi ko xam kenn du fa dem naa ko ay kër ga la kee soxna sa tas wax ñu métti yooyu doo ko fa def boo ko fa defee rek bàyyi boo nga xam ne kon nag wax dëgg yàlla kon nañu gën a góorgóorlu bu sant yàlla bu baax di gën a jàppalante di wax suñuy aajo saayir ba baati na ñuy ñaan yéenante ko lépp ñaan suñu borom dégg nga dégg nga dégg nga mën na koo dogal tañ góorgóorlu ci ci Serigne Touba yi luñ ci man dégg njàng màggal gi ci njàng bi ci am ba na fànn comme ni ko sëñ Cheikh Kadiaga mais di ko wax nee na nañ dal di commencé ñëpp ñoo xam ne mën nañoo jàng ay kaamil ñu jàng mu mën a jàng ci xasaayid yi ñu jàng ko te lépp lim buñ am ñu daal di koy jox sëñ Cheikh Gadiaga bi nan ci góorgóorlu bu baax dégg nga ndax kat ah maanaam fële moom gaañu naa kat dara du ko doy tey ginnaaw foom ñu kañ la ak fan la ak man la ah kii nga xamante ne bi dégg nga dégg nga moom moom moom xam na fan la ak kañ la ak nan la te mënal bi lépp nañuy góorgóorlu nag moom it dégg nga dégg nga di jéem ay ndigal ah maa ngi jéggalu bu baax dëgg yàlla ci maanaam kàddu lu ci noona sama ñàkk xam la ak sama waaye lii sama yéene daal mooy ñun ñëpp rek ñu doon taalibe Cheikh Ahmadou ma Xaadimu Rasuul ñu ñëpp ñu am maanaam mujj bu rafet ñun ñëpp ñu am ngërëmul yàlla ñu bokk ci milliardaire nag Serigne Touba yi rajo Cheikh Moussa Moussa donc daal loolu loolu laa leen di ñaan di naan suñu Touba daal boo ko amoon tey jii. incha allahu rabbi képp ku fi nekk rek tey jii moom moom booy dem ak yóbbaale seen. waaye nag nan bokk